Ely ñu ngi moo ko organisé caatu daaw da faal combat weesu daa am ndam ci kaw yankaaw kii di albarka kayre combat bi weesu dafa ñàkk ci kaw kaaw gurde caatu daaw am na benn avertissement kon en tout cas kon caatu am na trois points albarka kayre amagul benn point arbitre bi sifflé na caatu moo la féetee càmmoñ albarka moo la féetee ndijoor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 Fall daan na caatu daan na caatu daan na caatu daan na caatu daan na ginnaaw bi ñu la félicité ci ndam bi nga xamante ni na lool combat bi doo ko doon préparation ak bi mooy sa deuxième victoire ci ci ci ci li nga xamante ni mooy compétition waaw na

entraînement yi gën a dégluwaat euh, instant baax a baax di sant mbës bu baax a baax